ci la ngeen jëf candidat yi soobu woon ci législatif yi te nar ci ak loxo loxoy kese ñu naan leen ay perdant ñu bari ci ñoom ñàkk ak ñànki la ñu boole l' observateur xëy na leen seeti ubbi leen journal bi ki ci njëkk moo di Alaaji Malick ko borom grand parti nee na ñëgg-ñëgg xol la amee ak xel muy tey ci sincérité wote yi Serigne Mbacke Ndiaye ne moom la ko taxoon a jóg matal na ko mooy jàppale xaritam yi ci benn bokk yaakaar ngir ñu gagné élection législative yi Mamadou Sy Tounkara ne waa l' observateur ñoom ñuy mën a sori ci dañuy bàyyi ba résultat yëpp yemb ca la ñuy soogam takk bu wér ci ni seeni mbir tëddee Touré Moussa Touré nañu li amoon ci réew mi keroog dimanche du ay élection ay caaxaan la Ndella Madior Diouf bu convention citoyenne neneen ne démocratie bu Sénégal moo dellu gannaaw l'observateur nañu waaye gaay yi Khalifa yi mu di waa Manko taxaw Sénégal yàgg lañu ko fan ñoom it démb def nañu conférence de presse ca mairie bu Médina fa la ñu xamle sax ne li ñuy def ci réew mi du lenn lu dul hold-up électoral ak càcc la nguur gi bëgg andi ci élection yi waaye Ndakaaru ñoom waa taxaw Sénégal ñoo ko gagné Le Quotidien nañu fii ci Ndakaaru ci bataille des chiffres ci la ñu toll ci taxaw Sénégal ku nekk yaa ngi ràcc jëmale ci sa kanam démb ci ngoon rek waa kër Xalifa Sall yi mu di taxaw Sénégal ñoo ngi doon mars ci mbeddi Ndakaaru yi ngir zibile ñoom it doonte sax mars ba soriwul ndax police a ko tas les économies police moo ko tas ak i grenade lacrymogène muy Bamba Fall di Barthélémy Dias di ñañu àndaloon ca mars ba am na it yeneen fukki doomi aadama ak juróom ak yu teg yoo xam ne teg nañu leen loxo ca mars ba xeex bi jamono ji ngir kan moo teg tànk ci Ndakaaru kan mooy borom Ndakaaru journal les économies génn na de vote ya nga léegi ca mbedd ma waa man ko taxaw Sénégal nee nañu waa kër Macky Sall yi dañoo bëgg a sàcc élection yi te loolee duñu ko nangu fu mu yam neex bu ko rombee gën a neex bés bu yàlla sàkk léegi danañu tànn benn commune bu nekk fii ci Ndakaaru dem fa daje fa feete fa seen victoire la Sénégal nañu waa Manko nanguwuñu ndam li ñu ne waa Benno Bokk Yaakaar am nañu ko ci Ndakaaru Abdoulaye Diouf Sarr maire bu Yoff ministre gouvernance locale ni ñu ci xët mu njëkk journal bi opposition bi xam ne perte nañu ba xalangu nañu dajale lépp kalkine ko ba tey ci Dias kàdduy Barthélemy Dias mu fay xamle ne Khalifa Sall mi ngi sàkku ci askanu Ndakaaru bés bu yàlla sàkk nañu génn wàcc ci mbedd Ndakaaru yi ngir naqarlu càcc gi ñu bëgg a sàcc élection yi journal Libération moom amul xel ñaar Benno Bokk Yaakaar gañe Ndakaaru yéenekaay bi teg ci fiñ ci ñu nan la waa Benno def ba Ndakaaru tàbbi ci seeni loxo L'Observateur nañu 2885 voix de différence moo am ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak Manko Taxawu Sénégal fii ci Ndakaaru en attendant résultat di liste bi Amadou Ba jiite woon muy Benno Bokk Yaakaar moo jiitu ak 112 940 taxaw Manko Taxawu Sénégal topp ci ak 110 055 voix juróom-ñaari député yi ñu doon xëccoo ci Dakar Benno Bokk Yaakaar nee na ko fuuf teg na ci loxo waabale na ko Dakar plié lii la l'observateur bind Soleil national nañu Benno Bokk Yaakaar mi ngi yaakaar a génne ci législatif yi ak téeméeri député ak fukk ak juróom 115 député Moustapha Cissé Lo journal bi nañu nee na dafay def recours ngir ñu annuler wote yewoon ca Touba ndax yi fi jaarul yoon ca Sokone maire ba Mamadou Moustapha Gueye ñu gën koo xam ci Petit Gueye jëf ju Petit ji ko waa Sokone def moo tax mu ne dafay démissionné libération nañu ñaari nit a ngi yoo xam ne bu ñu démissionné wul it léegi tey Macky Sall dàq leen mu di njiital ARTP Abdou Karim Sall ak Cheikh baaxum directeur général agence informatique de l'État Abdou Karim Sall yéenekaay bi nañu li ko nar a yàqal moo di militant yi ñëwoon ñoo doon saboté meeting de clôture bu Benno Bokk Yaakaar ba woon ci stade Alassane Djigo Cheikh Bakhoum moom duma yu mitti ya ñu ko duma ca Grand Yoff ak nañu ko fa toroxale ci wote yi moo waral léegi tey président Macky Sall séddoo ak moom mu yóbbal anki dina kay xëy ak ñun ci jàngat bi ñu war a amee ci wotey député yi woon keroog dimanche ñeent ngi ñoo xam ne journal bi nee nañu bu leen neexee dagg seenub socc fas yéene ree ba ngàkk mu di waa Benno Bokk Yaakaar di waa PUR di ndawi askan wi ak Mamadou Guirassy wotey législatif yi ñi ci yàqule ñi ci tojle ñi ci tasle anki dina kay nañu moo di El Hadji Malick Gakou Idrissa Seck Abdoulaye Baldé Aïda Mbodj ak Abdoul Mbaye Mbaye ci say oom nañu dem ci direct info élection législative yeeg laj ji gi am ci organisation bi moo waral yéenekaay bi nañu jot na nag ñu seppi Sénat sànni te samp seeni commission électorale national indépendance Omar ja toj na fi ubbi leen l'observateur Omar Dia benn waay la bu dëkk Tëngéej yore këram di ko luye luye benn waay bu ñu naan Sadio Diallo am lu toll ci ñaar fukki at Sadio Diallo nekk ca kër ga di waxi olof Omar Dia ne ko sama kër kenn du fi olof ñoom ñaar ñu jàppante ca ba Omar Dia jël kurug roof dóor ko Sadio Diallo ci bopp waaja jaare fa faatu